dafay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog gi bi de nga gi yaa baadoola ah. dundal koor gi maa ngi ci bu baax non yow moom xam naa ni moom hmm. jàmbaar nga moom yow moom xam naa ne moom am nga jër jëf ndax weer wi ba ni ñu agsee fii. Mhm. moom xam naa ne moom yaa ngi koy dundal. bu maa ngi i bu baax. mbaa waajal communication bi nga xam ne moom nga war a def. ci korite gi maa ngi koy waajal bu raw comme ba ma defoon. waaw léegi nag. la ca amoon ca séentu bu njëkk ba. moom laay bañ ci bu mujj bii. ndax euh, euh, euh, dégg nga maam da ngaa yëgle ni. Mhm. nañu teel a daje ca kër ga. waaw teel a séentu weer wi. nit ñi nag dañoo toog ba weer wi feeñ ñuy doog a ñuy doog a daaga daaga ñoo bëgg mu feeñ sama kër man waaw góore waay waaw kay loolu laa bëgg noonu nga ko bëggee waaw noonu rek laa koy defe waaw waaw waaw góor noonu rek laa koy defe taxawal ci loolu taxawal ci loolu yekk na waaw baax na damaa ne ci yoon nii baax na jërëjëf baax na baax na mën ngaa dem waaw na jërëjëf jërëjëf jërëjëf ko waaye balaa bi dee nga dog koor gi yaa baadoola yaay mooy baadoola bilaay yaay baadoola yaay mooy baadoola sëñ Maodo yaay baadoola sëñ Maodo yaa baadoola ay lii moom du murmuraake la waay <laughs> bi tey tey yàq tey tas naa sa yaakaar léegi. yow liggéey li maa ko liggéey kay. yaa. yow booy yaay nekk li ma di. tey tas naa sa yaakaar de weer muñal ma rek. waa père tey da nga sama kër. baadoola sëñ Daouda yaa baadoola bilaay mooy baadoola sëñ Daouda yaay baadoola bilaay mooy baadoola ñëpp war wóoroo te yaay digle koor gi fii ci koñ bi boo xëyee sa kër koor ka fay tàggoo waaye balaa bi dee nga dog koor gi yaa baadoola bilaay mooy baadoola